mbokki Sénégal mbokki réew mi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 ba tey ñu ngi toog ak euh, Lat Dior Lat Dior bu bu bu woon Fass. te lekkatul bu le woon Fass Fass bu Fass maa ngi Fass ba léegi. <laughs> ah yaa ngi Fass. waaw Lat Dior kat dañ laa gisatul gisatuñu benn mbëru Fass boo xam ne Lat Dior en tant que Lat Dior mi ñu xamoon 2012. waaw ah. Lat Dior mu ngi accompagner ay mbër. waaw non ñoom ba léegi samay xarit lañu samay xarit lañ de. waaw ba léegi maa ngi ñoom samay xarit lañu ñu ngi ñu ngi jokkoo ñu ngi déggoo ñu ngi def lépp. Hmm. waaw samay gaañ samay gaañ lañu. fan moom yéen a ngi ci guddi gu ba setagul waa Fass. moom waaw fi mu nii moom temps yi moom mooy loolu quoi. Hmm. waaw mais naa nag incha allah yàlla dina def jàmm daal waaw. mais noo gisee combinaison wu yi taxaw diggante Modou loo Ama Balde noo ko gisee. bon Modou loo Ama Balde ni ma ko gisee combat bu war a mën a neex la quoi. Hmm. mais man peut-être li ma ci ja leen rek moo ma ci xamul. moom kenn xamul ba xam taxaw na kenn xamul ba xam taxawul. moom taxaw na ñoom ñaar. taxaw na mais en fait lan moo ci des parce que instant bi nii nit ñi dañoo namm làmb. ñun dañoo namm làmb quoi. te Modou Lo Ama Baldé jàpp nañ ne mooy dekkal làmb. donc combat boobu noonu bu amee rek gis naa ne làmb de dekk. moo tax combat boobu dañ ko yàkkamti quoi dafa war a gaaw ñëw dafa war a gaaw quoi instant yi ñuy ñaar itam maanaam président mu jàppale ñu ak itam ministre des sports mu dimbali ñu ci làmb ji parce que itam ñun làmb la ñu am ñun sport lamb la ñuy suivre quoi lamb la ñu am instant yi xamatuñu lu ñuy seetaan ndax lamb rek la ñu am te gisatuñu lamb donc kon bu mën war nañu cee jàppale daal mais Modou Lo Ama Baldé moom lamb ju neex la. est-ce que Bombardier Balla noo ko gisee. waaw boo boobu tamit euh, lamb la. lamb la lamb jàng bee daal moo moo moo ma gën a kii waaw bee daal moom man moo laa gën a visé wu daal. waaw parce que boobu di nga gis bëre di nga gis xeex di nga gis folklore. di nga gis tuus di nga gis dugg si mu neex di nga gis animation di gis lépp. waaw Modou Lo Modou Lo Ama Baldé mais bee moom ambiance boobu Balla Gaye fa indi daan nag kay daan moom yàlla moo xam moom mais. mooy loolu waaw. làmb wii kuloo noo ko gisee. bon neexul. lu neexul parce que làmb balaa mooy neex dëgg-dëgg mbër mi taxaw Sadji supporters yi ñëw supporters yi taxaw maanaam loolu foofu la deret mbër yëngoo mbër balaa deretam yëngu. làmb ji fe mu gestu xool public bi làmb ji fees dell ci leen dara tam di yëngutoo ne tey duma daanu donc ci animation ci biir géew mbër yu bëri ci biir géew lañ daan no supporter lañ daan animé ay Gris Bordeaux ay Tapha Gueye ñoom ay ñoom Zallo ah ay ñoom Ama Baldé ñoom Modou Lo ñoom Balla ñoom ñëpp supporter la ñuy animé buñ geesoo làmb ji xool tribune bi fees dell amateur yi supporter yi gis làmb ji fees moo day maanaam day neex ñoom dañuy am envie sax bëre parce que day neex quoi mais làmb huis clos du làmb sëñ bi waaw ah, non du làmb moom. mais huis clos ñu def ko pay per nga toog fii yor sa téléphone di ko seetaan du neex. non non man moom làmb li ma ci neex ma toog ci stade bi jàkkaarloog lépp luy xew ma di ko gis. bu sàjjee nga gis bu tuusee lu ma gis léeg ma dawale sama bët yóbbu fii léeg-léeg ma yóbbu fële mais tant yaa ngi xool di di gis benn caméra kese di la wan non loolu neexul parce que day lu bëri daf lay rëcc des fois lan caméra yi sax lan lay wan doo ko sax bëgg. maanaam par exemple duñ la wan làmb quoi duñ la wan làmb leneen lañ lay wan te yow làmb ngay bëgg a suivre des fois damay am envie toog ci télé bi seetaan sax mais su ma toogee ci télé bi damay taal sama moto demee saat ndax du ma gis làmb quoi du ma gis daraay làmb li may gis ay folklore ay ay way yoo xam ne wala loo xamante ne bii ñuy wane ay politiciens ay kalang kalang yooyu te loolu du làmb daal. làmb ñun dañu soxla mbër mi mbër mi quoi animation ci giir géew bi mbër yi ni ñu ambiance yi mbër bi loolu la ñuy soxla. Euh, ak wayu làmb yu neex mais boo toogee seetaan jàkkaarloog stade bi toog ci stade bi boo gisul boo gisul lu la lii da ngay xool leneen lu la neex ci làmb quoi mais bu dee caméra bi lam la yoon force noonu ngay mën a xool. dëgg la Lat Dior ma lay jaajëfal bu baax fi toll nii kan nga gis ni mooy danay maam Gorgui Ndiaye danay Moustapha Guèye danay Mbaye Guèye kan la fi mu toll. làmb ji wala Fass. Fass ak làmb. <laughs> waaw non man moom gis naa ne. a Baldé moom bu góorgóorloo mën na nekk mën na nekk relève làmb ji quoi. waaw bu góorgóorloo. topp ndigal am ay conseil mën na nekk relève làmb ji quoi. ak kan Fass. Fass nag moom bon Fass moom wax dëgg si yàlla problème moment nii nii moom gisagu ko fa moom. gisagu ko fa xanaa Serigne Ndiaye 2. kese waaw Serigne Ndiaye moom. mais xam nga làmb mbër yi en fait mbër dafa gaaw a naa ko mbër day jóg nekk ci lancé bu baax. ànd ak ay mbokkam mais day bëre benn combat ñaari combat yëg boppam naagu jàpp ne moom làmb di ko fi taxaw moo la man sëriñ sa nga doon ñu la doon ñaanal da nga leen di dépassé maanaam ña la ña la dar di la accompagner léegi doo dootoo wax ak ñoom say xarit danga leen di bàyyi booñ am ñeneen yeneen xarit te loolu nag du du baaxu baaxut ci mbër du baaxu mbër dafaa koy bàyyi bëri na ma bàyyi bëri ña ko accompagner ñoo ko accompagner ba ba nu muy bàyyi làmb maam góor gi Ndiaye noonu Mbaye Gueye noonu keneen ak keneen noonu mais mbëri léegi doo gis mukk ñu ànd ak seen xarit démb mukk doo ko gis suñ commencé siiw rek am na ñeneen xarit loolu nag baaxul ci mbër mbër dafay am maanaam li ñu naan ab gétt maanaam mbër day am ab gétt loolu moom mu cal mbër daal. am na solo la Dior ma lay jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf. mbokki Sénégal mbokki réew mi